bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci suratul qadr suratul qadr saaru inna anzalna mi ngi wàccee madinatul munawwara nekk juróomi aaya suñu boroom wax ni audu billahi min alsheytani arrajim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 kon loolu mooy suuratul qadar suñu boroom wax ne inna anzalnaahu inna ñun ñun loolu waxinu arab la fekk ne moom rek boppam la ci jublu waaye nekkul ne ay ñu baree bare la ci jublu maanaam inna anzalnaahu ñun yàlla maanaam man yàlla ndax yàlla dafa nekk màgg lool loolu la ñuy tudde damirul azama maanaam waxin woo xamante ni bi daal màggal boppam la ci jublu ñun yàlla ñoo ko wàccee ñoo wàcce lan alquran ñoo wàcce lan alquran fii laylatil qadr ci guddi gu tudd laylatul qadr yàlla suñu borom nee na mi ngi wàcce alquranul karim ci guddi laylatul qadr laylatul qadr guddi la goo xam ne ci wan weer la nekk weeru koor la nekk ci weeru koor la nekk kon alxuraan doy na ak tedd nga ci ne lu tedd la suñu boroom wàcce ko ci weer wi gën a tedd ci weer yi fukki weer ak ñaar yépp weer wi ci gën a tedd mooy weeru koor suñu borom tànn ci weeru koor guddi ga gën a màgg muy guddi ga laylatul xadar wàcce ci alxuraanul karim kon loolu ñëpp dañuy dëppoo ne kon laylatul xadar ci weeru koor la nekk laylatul xadar ci weeru koor la nekk wuuteeg ñi nga xam ne dañuy wax leneen laylatul xadar lu muy firi mooy guddi guddi gu màgg maanaam guddi gu tedd daal guddi gu tedd lool wala ñu ne mooy guddi dogal guddi gi nga xamante ni bii ci la suñu borom di dogal li war a xew ci at mee di ñëw kon inna ñun yàlla anzalnaahu wàcce nañ alquran fii laylatil fii laylatil xadar ci guddi gi laylatul xadar mooy ci guddi gu tedd ci weeru koor wala ci guddi gi nga xamante ni bii ci la suñu boroom di dogal li war a xew ci at mi di ñëw wax na ci beneen aaya ne inna anzalnaahu fi laylatin na inna kunna munzirin fiha yufraxu kullu amrin hakim nee na alxuraan wàcce nañ ko ci guddi gu tedd ci guddi googu nga xam ne ci la suñu borom di dogal lépp lu war a xew ci at mi di ñëw maanaam ñi war a dund ñi war a faatu ñi war a faatu ci la suñu boroom di xool ñi war a faatu ci at mi ñan la ñu war a judd ci at mi ñan la kenn ku ne at mi ban bis la cay faatu ban waxtu la cay faatu yàlla ñi nga xam ne ñoom la war a wërsëgal lépp la war a am ci at mi daal ci guddi googu la ko suñu boroom di dogale bu ko defee nag mu wakkil ko malaaka yi nga xamante ni bi ñoom koy dénk kenn ku ne la la suñu borom dénk nga féetewoo ko su dele ba ko suñu borom bëggee jotee mu digal kooka loola am kon laylatul xadar mooy guddi dogal bu ñuy dogalee mbir yëpp wala ñu ne mooy guddi guddi gu tedd lool inna anzalnaahu fi laylatil xadr suñu borom daal di waxaat ne wa ma adraak ana lan moola xamal maa laylatul xadr lan mooy laylatul xadr loolu day wane ne guddi gu màgg màgg la loolu ab laaj la tey boo xamoon laylatul xadr mooy lan mel ni kuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa ko tey boo xamoon laylatul xadr moom mooy lan suñu borom ñëw di leeral daan ne laylatul xadr day guddi gi laylatul xadr guddi la goo xam ne xayrun moo gën min alfi shahrin ci junniy weer maanaam guddi la goo xamante ni bii képp ku cee def lu baax képp ku cee def ak jaamu yàlla képp ku jee def istixfaar jéggulu suñu borom képp ku cee def lu baax ci gàttal daal mel na ni ku def lu baax ci diirub juróom-ñett ci diirub junniy weer junni weer nag mooy juróom-ñett fukki at ak ñett ak ñeenti weer maanaam ku toogoon benn guddi lee du xadar di jaamu yàlla di julli di woor li nga def lépp lépp lépp mi ngi tolloog ku toogoon juróom-ñett fukki at ak ñett ak ñeenti weer di jaamu yàlla kon leelu du xadar guddi gu màgg la lool nit mën naa dund ba faatu te du matal sax ci at juróom-ñett fukki at kon benn guddi la goo xam ne daal jaamu yàlla boo ci def daanaka day tolloog jaamu yàlla dundub nit jaamu yàlla dundub nit loolu nag maanaam ngeneen lu màgg màgg la suñu borom jagleel ko xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko ci guddig laylatul xadar xayrun moo gën mel min alfi shahrin ci junniy weer loolu nag bu fekkente ni yàlla xeewale na ko xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci indil leen génn guddi goo xam ne boo ci defoon ak jaamu yàlla suñu borom nangul la ko mi ngi mel ne ku toogoon benn at ñaari at ñetti at fukki at ñaari fukki at ñeent fukki at juróom-ñett fukki at di jaamu yàlla yéen a tolloole maanaam tuyaaba ji ngay am moo tuyaaba ko toogoon juróom-ñett fukki atak ak ñett di yàlla yéen a yéen a tolloole kon guddi googu bu jotee nag ëpp naa sàggane xam naa dinañ defaat beneen jataay boo xam ne dañuy wax ci laylatul xadar rek ak ci guddi guddi laylatul xadar rek fukki fan yi mujj ci weeru koor incha allahu taala suñu borom di wax ci màggaayu guddi googu ba léegi mu ne tanazzalu day wàcc day wàcc rek di wàcc wàcc ci guddi gi al malaikatu malaaka yi war ruuxu ak Seydina Jibril fii haa ci moom yàlla ne guddi googu bu jotee nga xam ne ci weeru koor lay doon màggaaya guddi gi tax na ni malaaka yi toujours dañuy jóge asamaan di wàcc ci suuf dañuy wàcc rek maanaam wàcc noonu benn yoon dañuy wàcc di wàcc di wàcc rek ñoom doomu wàcc ñu de ak seen kilifa te mooy Seydina Jibril moom it Jibril moom it dañuy wàcc malaaka nag bu wàccee nag ñaare buy wàcce rek ndax malaaka du nekk foo xamante ni yërmaande nekku fa bu wàccee rek yërmaande aku yiw ak barke moom moo tax mu wàcc kon guddi googu guddi la goo xamante ni bii daal guddi gu am barke la lool ba tax malaaka yi dañuy wàcc di wax amin ci ñaanu doomu aadama yi maanaam jullit ñi julli yu ñuy julli ak ñaan yi ñuy ñaan malaaka dañuy wàcc di ci wax amin malaaka yi yu baree bare nag malaaka yu baree bare dañuy wàcc ci kaw suuf ba suuf si fees dell ak ay malaaka tanazalu day wàcc al malaikatu yi wa ruux ak jibril fiiha ci guddi gi bi isni rabbihim ci ndigalul seen boroom maanaam suñu boroom moom moo leen digal ñoom ñu wàcc ndax ndax ngëneel gu guddi gi laylatul xadar am bi isni rabbihim ci ndigalul seen boroom min kulli amrin ànd ak mépp mbir ànd ak mbir yi nga xamante ni bii suñu boroom da ko fas yéenee dogal ci at mi kañ la malaaka yi bu ñu wàccee dañ fi toog ba kañ salaamun jàmm suñu boroom ne salaamun jàmm maanaam guddi gi guddi jàmm la guddi gi lépp jàmm aku yiw moom moo ci nekk ba kañ xiya moom xatta matlail fajri ba keroog fajar di fenk malaayka yi kon dañuy nekk ci àdduna bi ci kaw suuf si diiran bu timis jotee ba keroog jant bi ba keroog fajar di fenk malaayka yi dañuy wàcc ndax diggante boobu moom moo nekk guddi gi kon guddi gi lay du xadar daal mi ngi noonu yéen bi sallallahu alayhi wa nee na ku taxaw guddi laylatul xadar di jaamu yàlla maanaam di julli di naafile ngir gëm yàlla tax nga koy def ak ngir sàkku tuyaaba doo tax nga koy def xamal ni suñu borom dina la jéggal say bàkkaar xufira lahu ma taqaddama min zanbi yàlla dina ko jéggal lim defoon ci ay bàkkaar yépp yàlla suñu borom subhanahu wa taala dina ko ko jéggal kon guddig laylatul xadar guddi gu màgg la lool lool lool ni ko waxoon ci tàmbalikaay bi rek doy ne rek ñu ne suñu borom moo ci wàcce ci ni borom ci la wàcce alquranul karim dañuy bañ mu xaw gudd moo tax dañuy yem fii bu ko defee buñ ñëwaatee nag bañ jël beneen saar taxaw ci guddi guddig laylatul xadr rek fokk fa ñu mujj ci weeru koor incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi